wolof euh, li ñu bëgg a wax Sénégal mooy que dañu toll foo xam ne dañu am nguur boo xam ne dafa tële tële nag li koy indi ñeenti yëf la tële li koy indi mooy nga wax loo xamul ñëw dige loo xam ne xamuloo ko mooy indi ngay wax dara te doo ko mun a def waxuñu leen fi woon ne dañuy jiital réew mi doog ci teg parti bi léegi lan ngeen gis naka lañ leen fi waxoon dañ fi waxoon bennoo bokk yaakaar est-ce que gisu leen bennoo bloqué yaakaar loolu moo fi am donc benn télé nga noonu ñaareelu télé bi mooy nga ñëw wax loo xam ne lii naroo ko def dige rek dige rek pour jot ci nguur ji boo ci jogee boo ci jotee nga ëlbatu ñetteel bi mooy nga am nguur nga boole ci lu ci bokkul ñu jël alal dénk la ko ne la ñëpp a ko bokk nga war ko jël ah jox ko ñi ko mën a liggéey nga jël ko di ko séddoo jël say mbokk ak say xarit dugal ci nga boole ci lu ci bokkul jël réew jë jox ko say njaboot ñuy distribuer ku nekk di cëppi cëppi loolu kenn élirul nit pour noonu te loolu moo tax télé bi am ñaareel bi projet de société yi nga xam ne ñii ñu ñu koy jaay naan ñu moom la ñuy defar boo xoolee réalité bi da ngay gis ne croissance boo mënti am Sénégal te nit ñi lekk ñu ba suur faju wuñu boobu ban njëriñ la am am naa gëléem mu nga gànnaar croissance croissance Sénégal te kenn mënu fi am fanaanoo dépense boo fanaanoo loolu moom mooy euh, problème mu croissance ñetteel bi mooy dañuy jël nguur jox ko ñoo xam ne ñi mënuñoo yore nguur parce que fas da nga koy jox ku xam fas doo ko jox sa xarit fas da nga koy jox fas te Sénégal dafa am ñetti xeetu rab yoo xam ne yi dañ leen war a moytu rab bu njëkk bi moom mooy caméléon maanaam kàkkatar kàkkatar day fexe lu xew rek mu ñëw bokk si fu nguur bu ñëw rek fu fu weñ weñ rek fu tooy mu takk kakatar fu fu couleur bi am rek mu changé pour adapté wu kakatar yi moo fi bare Sénégal ñaareel bi mooy bukki yi bukki yi ñooy def seddalee bukki lu ñëpp bokk ñu def ko ñeenti sàmm ne bii bukki bii njuur bii sàmba bii ku njëkk te teg naa ci sama loxo looloo tax kenn mënu cee jot bukki ñeneen ñi mooy kaymaa yi kaymaa yi moom dañuy wax ak yow di reew ak yow te bu buñ la jekkoo daal di la no fuuf lekk la ñun nag ñooñu ñooñu rabu àll yooyu la ñu bëgg ah ak ñi leen di identifier ñoom la ñu bëgg bàyyi Sénégal ak sénégalais yi ñu liggéey ko loolu moo doon suñu kaddu. ñoom benn jaxate maa ngi dëkk Touba mbàkkee nekk nag mouvement bi jëngu la tudd mouvement jëngu dafa jot ñu jël suñu réew mii nag teg ko foo xamante ni fi la ñëpp bëgg mu jëm fa ndax doomu Sénégal yi dañoo sonn sonn nañ lool boo xoolee xale yi ndeysaan kenn ku nekk ci réew mi ndax réew mu metti kon tey dafa jot nag ñu jël réew mi seet koo xamante ni dana ko jëme fi ñëpp bëgg ñu jox ko ko mouvement jéngu nag ku ne xam na ne jéngu moom yombut dafa metti waaye nag nañ jéngu ba jël réew mi te ko fi ko ñëpp bëgg a jëmale incha bu soobee yàlla mu jox ko taal bi sëñ Bamba bi mu président Boubacar Camara mu jëmee ko kanam jërë ngeen jëf